jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbegte comme niñ leen koy defalee saasu ne bu ngeen gisee fii ñuy jéggi nga xamante ne actuellement ñu ngi ci île du jóge ci dëkk jàpp diggante Kër Samba Dia Fimela ba jëm fi nga xamante ne mooy mar Marfaaxo nag xale moo fa dëkk xale boo xamante ni vraiment bi muy dugg ci làmb kenn laajtewul lan moo tax mu dugg ci làmb ndax doomi mbër la deretu mbër dafa nekk ci yaram bi muy Calme Ndour naan ko Grand Mbagnick moomu tey moo tax mooy def open press fële ca Marfaaxo l'ensemble wasaare ak équipe bi yëpp ak suñu yeneen mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk nekk ci presse bi ñu ngi fi ku ci mel ni Leewtoo mu ngi fii ku ci mel ni Bawal TV ànd ak pël bu rafet ak wasaare làmb ñuy wax ni rek que ni lépp lu ngeen bëgg ci làmb dina leen ko wutal mais bu ngeen gisee dëkk bi ni île bi nga xamante ni diggante île yi danga nga ciy gis xale bu mel ni Siteu moom ci lu mu wax dangay dégg muy wax ni maa ngi nuyu suñu waa dëkk ndaysaan tudd dëkk ba boo déggee caatu booy bambara. moom it day wax maa ngi nuyu suñu waa dëkk tudd dëkk ba ku ci mel ni ah, Kalmu Ndour mii ñuy seeti moom it day tudd waa dëkkam tudd dëkk ba muy wane ni saa su ne rek làmb dafay génn ndax bu xale bi amee point de presse wala open presse muy Kalmu Ndour bi war a jóge fii déplacé wu ñëw dëkkam bëgg nañoo wane leneen ci xar làmb waaye bëgg nañoo wane leneen loo xamante ne ay cosaan la lii ñu yéeg cosaan la ki koy dawal boo ko gisee xam ne xale la bi ma ko laajee daf ne ma man lii rek laa xam man ci lii laa juddu ci lañ ma nàmpatal ci laa màggee moom laa xam nga xam ne ku ci nekk ak li la yàlla wërsëgale ñii xam nañ géej ñii xam nañ micro ñii xam nañ caméra ñii xam nañ leneen ak leneen ak leneen waaye en tout cas daal géej gi amul bànqaas sama rakk yi wala sama frère yi nga xamante ni ñu ngi jël géej gi di dem vraiment ay jàmbaar lañ ñi nga xamante ni dem daa nekk ci seen xel ñu leen di ñaanal yàlla na ngeen toog bu ngeen toogee yàlla na ngeen am lu ko gën tukki bi ngeen bëgg yàlla defal leen ci jàmm ñi nga xamante ni jaar nañ ci dem lépp lu ñuy wut foofu yàlla na leen ko suñu borom defal ndax xam naa ni daal géej amul bànqaas dañuy dugg toog ci biir xool sama gaay yi xool nu ñu fas yéenee toogee ba keroog ñu yegg ci dëkk ba Adama ci kanam rek. endur wali non faap i andir er wa jeri wa no magola den bogu faap ta andir wali non bogu faap i andir er wa jeri wa no magola den bogu faap yow yo waay no mbogu jeeri wa no maago laa den mbogu faap aca mbokk yi ñu ngi noonu ci Marfakho gis ngeen xale boobu di Grand Mbagnick mu ngi noonu di génn ci dëkkam mu ngi noonu di génn ci këram ma nga noonu ndeysaan yor benn euh, galañ wala boog yat yat wi xaw ma yat lu mu doon waaye ma nga yor benn morso bu xonq ràngoo sër ba ndeysaan cosaanu séeréer baa ngi noonu ndax lii ci mbiru séeréer la bokk dem na ci Yaxya Jóob Yékini ndaysaan nii la daan dugg see ndeysaan Grand Mbagnick tey def nga lu rëy fi nga juddoo fekk fa mbaax màgg tey ba am bis bis boobu nga di ko dara jaalee dugg oh sama yaram daw na ndaysaan boo xoolee kanam gi sax am na lu muy yëg ndaysaan lii mooy làmb ña wis yëkkati na ba samp na ko rëdd na ndaysaan def na bidéew samp ko ci digg bi samp na yat wej yat ba mu yor yatu kella wala déet rëpp na om ma ngay léem ma ngay léem ndaysaan dëpp na loxo ba dëppi dëppi na ko ndaysaan ndaysaan ma ngay léem xolal caat ndaysaan ma ngay léem cey làmb ma léem ma ngay léemu ndaysaan jël na ndànk ndi joor bi ndaysaan yëkkati na ko di bu na suuf ci béjjën bi garaam ma ñi ngi noonu di njaab ndaysaan waa dëkk baa nga noonu ndaysaan cosaanu séeréer yaa nga noonu lii de mooy làmb ndaysaan nee na puus leen lu mu nar ndaysaan may leen ko ndaysaan yaa ngi noonu ndeysaan ma ngay wax ma ngay wër ndeysaan lamba rafet sànni nañ Agara manjiga jaiwe Kapite jonam Gori marga igada Agara manjiga jaiwe Abdu jiga jo Valala lumba yang banjigwe Lamle jina te jaya Tanjogai negara narepane jogo lala lumba yamba ni kwe Dable kina tenya yo anta jogo ina gena repale Abdika jogo lala lumba yamba ni kwe Dable kina tenya yo anta jogo ina gena repale Thank you. tujigajo kolele lumba ya mai wei jamle jina te jayo na refane Abdu jigajo kolele lumba ya mai wei jamle jina te na refane Abdou Jiga Joob a lala lu bayan bañi fay labale ji naa te jaayan waa taa njogoy la gën na refale Abdou Jiga Joob a lala lu bayan bañi fay labale ji naa te Abdou Kiga Diop walla la lumba ya mani fe Labale jina te jayo ata jogo ene kenna refane Abdou Kiga Diop walla la lumba ya mani fe Labale jina te jayo ata jogo ene kenna Abdou Giga Diop walla la lumba yamma ni fay labla jina de jayo ata jogo ne kenna re fane Daldi Giga yela mala jinne roge yaya bozun ganjoti nangin gor fere Daldi Giga jinne roge marabu gina mani ando so misune wasi bob donno bay roge na digil min gele marabu gina mani ando so misune wasi bob donno bay roge na digil min gele seen junior ama seen junior gars yi nee nañ dafa diis sa gis-gis ak sa diggante sa ak ama seen junior lan nga ma ci mën a wax waaw li ma si war a gis mooy ñun suñu xel dal na bu yàgg depuis premier combat ba gars yi ràmb wala suñu xel dal parce que ama seen junior bu diisee si kanam grand bañ comme grand bañ jëm sànni ko bàyyi ko mu a yàlla may yàlla may ñu talak fekkee ba le diis yàlla may ñu ndam te le diis bi tey moo koy woone tey journée tey man du ma koy su tey laa koy mu tey conseil bi tey la mu def fi open press waa dëkk bi yëpp génn maire yi paa yi xale yi ndaw yi mbër yi nekk indi saal yëpp wuyu si ko bon nag fii la war a fii la war a exemple bu demee si làmb ji bëree waale tey loolu tubaab bi ko dugal si boppam man loolu laa am lu ma ko conseillé. lii daf cee war a mën a rey boppam. voilà mm-hmm, mm-hmm. ay caaxaan du wu ñëw waaw. paa yeeg maire yi waaw ñëpp ñëpp ñëw ñëpp bàyyi seen yite ñëw. ma ji commencé gul ñëw nañ ñii fas ñu ngi takkat yaa ngi ne toog ñii ah, a non lii lii publicité bi rek lii moo si gën a ndaw si li ñuy def lii moo si gën a ndaw xaa ba jour ba jour lamb yi jot xam na mbër moo ko fi waxoon mu taxaw si télé di wax di tatati rek mais buñu dëggee si digg géew waaw non non rek dama lay wax ñun li ñu def ñu ko boolee ko wax duñ ko boolee ñu ba ba jour ah. ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp fu ñuy rootee su ma déggee si waxi caat mooy Eumeu Sène Junior am na problème amul sens amul sens combat bi bilaay wala amul sens combat bi yàlla moo yor yàlla moo yor ndam nag mais li ñu li ñu wàcc ak ak fi ñu paay jàpp rek maire yi amul sens si combat bi. Hmm. kon le 10 mooy xew. le du lu xew dañu ñëw jàppale suñu rek grand Mbagnick yàlla may ko ndam ñu ñibbi si waat. le 10 de yow de sa combat ambiance nga nga ñëw bëre daan le 10 grand Mbagnick lay def xam nga affaire bi du ay fecc du ay woy bëre ki muy bëre du sonn dafa ñeme encaissé. waaw waaw non le 10 ñoom def lu mu war a def mu jóge si géew mi def muy def mu jeex lamb ju yàgg sax. Magic day xeex wala day mbëre wala lan lay def. dina xeex dina bëre du yàgg combat bi du yàgg. Thiat yaa am. si kattanu yàlla. Thiat vaar vaar day am. du yàgg fii laay xoolee du yàgg. kon dama lay bàyyi ba si kanam. nga ambiance. incha allah nga fecc après ñu dem toog ñu lu bëree bëri. sa diggante Kalmundur. Euh, ak Eumeu Sène. incha allah amul benn problème incha allah rabi. léegi Karim Cikey Thank you. leyna reɓe ina usmay ley jaya buga mbañik koy ma far wa ngid ma nanude mbiɗo xarit ko hennenuma ara na taxa to kaala ko henna ret o ɓiy o ɓiɗo coro ara à se connaître à se connaître a machine combat a préparé a fakkan combat maa ngi lay nuyu bu baax baax a soxna si ci loo ne sant Sëñ wér sa diggante Kalmoundo waaw Kalmoundo de sama benn booy moom boole moom Pape Faye premier combat ba huitième combat moom ñu ànd mu jox ma léppam combat bi premier combat ba bi ñuy combat man man maa koy waxaale moom ménagère Amadou Ndiaye ba léegi yaa ngi ci wala delloo ko ay mbokam non non ba léegi daloo ma koy mbokam mais bés bu bu fay ko million ci lam ji moo daloo koy mbokam dem toog ah da ngay ba fan nga fas yéene ànd ak moom damaa fas yéene ànd ak moom ba mu nekk roi des arènes ma dal koy bàyyi sama nijaay maa ngi lay nuyu di la ziar soxna si maa ngi lay fay naka nga def ak tàngoor bi ah ñu ngi sant rek mais nag tàng na sax tàng na de tey mu mel ni da ngeen a kontaan nag bu baax sax bu baax bu baax a baax a baax a baax ñu baax la kontaan non lii bu ma kontaan mbooloo naa fu ne. mboor naa woon mboor naa fu ne. Mbagnick sama rakk la kan mu door sama rakk la. su ñaar yaay ñoo bokk ndey ak baay man maa ko yor man maa ko indi Ndakaaru ba fu mu nekk nii man maa ko yor chaque jour man maa koy ngembu man maa yor léppam kii sama xarit lan dig man maa jiite mu ànd ak moom. kon yow ancien couloir la waaw. ba pare man encore maa ngi nekk ci Boña yor naa Boña presque ay 4 combats yoo xam ne moom chaque jour dama ànd ak moom. kal mu ndaw maa ko yóbbu ci foofu ci écrit boobu man maa ko yóbbu écrit écrit boo noonu. yow looy ànd ak ñoom ci wàllu ñaan ci wàllu bëre wala ci ban wàll. man ci lépp laay def man damay ñaan ñaan kat laa damay ñaan ba pare de damay moom di ko won ay bore di ko xamal lépp li nga xamante ne ci bore te ki nga gis nii ah waxuma ne nag moom duñ teg mu yàlla mais nag des na lu bari bari bari bari bari. sama nijaay vaar dafa xew de. ah vaar daa xew waa dafa xew. vaar waaw. ba xam nañ ko baax a baax a baax. waaw mais nag gis nga. maanaam loo wax rek après. ñun dañuy ñëwaat nga wax dama lay dama lay fii nga ñëw nii dëkk bii boo duggee ji dekk Ili Séeréer yëpp boo laajee cosaanu borom fii la fii mooy Mbar Fafako façon mu samp yëpp la juut na fi ñun lamb dañ ko doon gis nga fi ñu dëkk fii suñu famille ñun suñu xeet ñun ñoo fi mbir ngor ci dëkk bi. dégg nga baax. jërëjëf Tom Mbagnick ci la bokk. yaay booy maa ngi lay nuyu. maa lay fay. nga baal ma fàttali ma dëkk Mar Faafako. man itam maa ngi lay delloo nuyoo bi. di leen masu coono ci yoon bi. ndax suñu waruwaay bi dafa sori. da ngay jël oto. jël gaal jël sarit kon ñu leen di masu coono te di leen dalal. te di ñaanal ki nga xam ne mooy garant. koo mbaam bii. yal na ko jig yal na ci am ndam. ñun waa Marfafa de dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal ñaan bu baax ñaanu ndey ñaanu baay surtout ñi nga xam ne yéen a bokk moom liggéey bi lu ñuy ñaan daal lu dul yàlla may ko nam loolu dong la ñuy ñaan ñun waa Marfafa ko il de mar mar looj mar sulu mal wañe ak ñi ànd ak moom ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen jaajëfal di leen baalu te di leen baal ak kontaan nañu ci seen ñëw bi kontaan nañ ci ñoom waa rajo bi ñëpp kontaan nañ ci ñoom. Kalmu Ndour kii di Matar Ba seen diggante yéen ñaar lan waaw sama diggante maak Matar na maa ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko kontaan si ñëwam bi ndax lii du hasard kii benn guddi la ñu xamante guddi ñu tase nii ay numéro mu ne ma su ma ñibbee Dakar la di nga fekk ma sama bureau ma dem mu jox ma teraanga boo xam ne mosuma ko am si làmb mu ne ma nag garanti naa la 217 sa combat te dinaa la jëlal bloc pour sa fans yu jóge mar te dar diiru euh, combat bi dafa gàttoon mu ne ma man naa la jàppale loolu te xam naa ne bu combat bi gënoon sori loolu dina ëpp loolu maa ngi koy ñaan di woo waa mar nag di woo waa mar ñu jàppale ko parce que li ma leen waxoon bi muy bi mu joxee tiset yi ma woo leen réunion stade li ma leen waxoon du ma si ragal télé laay wax xam nañ ma bu baax li may waxoon moom laa si jaaraat Matar doomu Jiloor la bëgg mar faaba ko ñëw di def si hôpital bi fii lu ne kon nag dama bëgg waa mar waa île du mar île du Saloum mar yëpp ñu dooleel ko jàppale ko xam ne suñu doom la doo île bi la te bëgg na réussir île du mar maa ngi woo gaay yëpp na ñu ñaanal ko doole ko ndax mu ne maire de la raison de commune de Fimela incha allahu rabi. dégg nga li nga xamante ne moom la grand Mbagnick wax nga nekk koo xamante ne nee na léppam nga nga am looy yóotu ci réew rawatina fii nga xamante ne fii nga fekk baax seen diggante yéen ñaar lan la. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di féliciter organisation bi ma fekk fii sur place boo gisee tey ma fexe def déplacement dafa am ay activité sax yu ma nekkoon ci biir commune bi mais Grand Mbagnick comme ni mu la ko expliqué sama rakk bu baax la bi ñu dajee yàggul waaye wan na ma fulla won ma jom wan ma fayda te man loolu laa soxla pour développer commune bi parce que loolu mooy sama yéene tey euh, jàpp naa ne kii champion bu mag la xëy na tour bi jiitu na ko sax waaye li mu war a def ci jaloore mu ngi ci kanam moo tax ñu koy ñaanal combat bi mu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin suñu borom defal ko ci ndam mu bëre bëre bu amul njaax bëre boo xamante ne daan bu set wecc lay daan mu yóotu li nekk ci kanamam. merci asalaamaaleykum mbokku Marfa Fakko ñu ngi yu nag ñi fi teew yëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw euh, tey yaakaar na c'est première dans l'histoire des îles ñu am mbër muy Grand Mbagnick ñëpp xam nañ ne mari ku leen xam-xam ne lamb cosaan la fii mu nekk xale bërëb fi mbapat yóbbu fi ay nag def fi ay jaloore yu mag a mag a mag àdduna di dox di dox ba mu dem aareen di fa defaat ay jaloore Euh, ma nekk maire ci commune bi yàlla teg ma fi ci 2009 ba léegi man population bi ñoo ma fi teg ma gëm ne fi ma nekk nit a fa nekkoon ala kulli àllin keneen dina fa mos a nekk waa Mar Fafako ak waa Mar Lodj ak waa Mar Sulu yëpp nekk ñu baax tey Mbagnick ñëw fii mu doon def programme bi fële à Dakar mu ne damay ñëw def si open press bi fii. Amar Fafako fii nga xamante ne fii laa juddoo fii laa cosaanoo su ko defee lañuy ñuy seetaan Ndakaaru ñu seetaan ko fii man kon Mbagnick yal na la yàlla fay yal na la yàlla taxawu wax naa la sànq fii bi ma bi ngeen ma interrogé ma ne leen Mbagnick lamb def koo don du lu muy foraatu te incha allah bu jàmm rek di am bu ko yàlla jàppalee ñu ñem ñu jàppale ko Mbagnick peut le roi des arènes loolu gëm nañ ko ñu ngi koy dund ak moom te nee naa ko maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa kanam loo joxoñ ma dagg parce que nag looloo tax ñu ne fii may sant presse bi di sant waa Marfafa ko yëpp di fedeli sama coloré sama diggante ak yéen di leen di naan Mbagnick mii jàppale leen ko parce que jàppale Mbagnick moo jàppale sa bopp mbëru séeréer yi fi ñëw yëpp ñu jóge Palmarin ñu jóge Jonwaar nekk jóge Marsulu jóge Marloj ñëw jàppale si Mbagnick nañ def noonu ñun ñëpp ñu yëkkatandoo doorandoo Mbagnick lëm de dix dinaa leen jox ay bis ñu yóbbu leen incha allah ngeen dem bëre ji. ngeen dem bëre ji que yàlla def na ay bis ñu ngi fi. te bés bis yi indiwuma ko pour man dama ko indi pour bégal askan bi dinaa jox dinaa leen jox ay ñetti bis ngeen dugg ci dem arène dem arène incha allah toj arène ba mbañik am victoire ñu ñëw fii def caravane la paix totale dans les parce que mbañik loolu la yéen nit ñi di nuyu waa mbokk Mar fépp di leen siyaar di leen bége di wax ni ku ne xam nañu li ñu fi indi muy open press ki nga xamante ni mooy Grand Mbagnick Grand Mbagnick war a bëre le 10 octobre fële ca arène nationale dox ci diggante ak siñoor Sène Junior ci diggante ak Eumeu dégg ngeen li nga xamante ni moom la monsieur le maire Karim wax ci mbërëm lii lañuy xaar ci monsieur le sa mbër am bis bu rëy nga jàppale ko taxawu ko ñaanal ko li nga xamante ni mooy ndam tey boo ñëwee Grand Mbagnick gis monsieur le ñëw sa dëkk gis waa Marfa ak xob bépp génn jàppale la soutenir la ban yëg-yëg nga ci am pël bu rafet. waa bisimilah. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di ziar di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou di nuyu suñu sëriñ Cheikh Aya uldu Cheikh Taalib Bouya uldu Cheikh na Cheikh Sadbu di nuyu sama sëriñ sama sëriñ sama wasila Cheikh Sidi Khayri uldu Cheikh bu naan doomu Cheikh Taalib Bouya di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu mbokku tarixa yi nekk yëpp di nuyu xalif général de Mourides sëñ Muntaxa maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu xalifa Tidiane yi Laayeen yi Ñaseen yi maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di gën a sàkku si ñoom ñaan waa di nuyu waa Mar Fafa ko ñëpp di nuyu waa Île du Saloum waa arrondissement laa xam nga waa Gandoun ba Dionewar ba Niodior ma kenn dañuy sonn samay combat parce que lii dafa neex am sa bés ñëpp taxaw la waa Dionewar a ngi fi waa Niodior waa Moundé waa Thialane waa Mar Sulu Mar Looj ñëpp teew comme dañ ma sas kon bu soobee yàlla man dinaa leen defal lu ñu bëgg incha allah te xam nañ ma bu baax xam nañ lu ma mérité te xam nañ lu ma mën man maa leen wax ne j'attaque je cogne et je gagne maanaam bu ñu am dara lu ñuy ragal si man comprendre comme li ma leen waxoon rek prix dib bi rek ma teel leen a libéré gis ngeen bi ngeen ñëwee yoon bi nu mu soree nu mu méttee dugg ngeen oto dugg gaal dugg saret kon waruma leen teg gàcce te incha allah dinaa leen jox ndam bu sedd guy si barke Cheikh na Cheikh Sadbou monsieur le maire sa diggante ak monsieur le maire dégg nga li nga xamante ni moom la jot a wax ci bis ba dina la may trois bis mu mel ni kon gën na laa yombal dem gi ak dikk non lu bees si man mm. son la jege moo ko sama pap ñoo ko dundu démb ak ma Faat Coro aw ma seen fay ak mère Khady Diouf ndem si yàlla ñooyu dañ ma buggoon bi may door a di làmb di jógte kii dañ daan tase mu may defal ay teraanga boobu xaw ma sax dinaa taxaw fii nekk di mbëre di bëre arène kon lii bu ko defee comme euh, tàmm naa ko si moom te xam naa ne yéene na ma la ëpp lii kon lii dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ci barke na Cheikh Saad bu bu ñu bokk ndax sama sëriñ moo ko seexal Cheikh Sidi Xayri ibnu Cheikh Bunana doomu Cheikh Talibou ya ndax ñoo ñoo ko bokk voilà. tey gis nañ ni combat bi avorté na ñaari yoon bis buñ ko jàppee rek mu yàqu ci diggante bi tey nga jëm ci la 10 ngay waajal sa diggante ak Eumeu Sène Junior noo ko doon waaje ndax diggante bi nga xamante ni yaa ngi ko doon waaj mu ñëw fommaat ñëw maat nan nga koy waajee actuellement. non instant amatul waaj instant pare nañ jàpp nañ combat bi mu fëmm ñu jàppaat ko mu fëmm ñu doog koo jàpp li fi li ma waxoon rek mosuma see teeg victoire bi mu ngi sama loxo te incha rab rabi dama leen koy andi waa Île du Saloum ko monsieur le maire ñu andi ko feete ko def caravane des îles du Saloum pour la paix dans les îles. monsieur looy def bu yeboo nga def ko avant combat ba ndax boo ñëwee làmb ja lépp lu fa war a def moom moo koy def. Eumeu Sène junior bu arbitre sifflé du ma xool si bët man maa la wax loolu bu arbitre sifflé maa xool si bët bu arbitre sifflé arbitre dañ suñuy diggante ñu mu maa xool si biir bët déggoo li ma li ma ko waxoon dip loolu amul loolu ñii dañ fu ñu jógee dafa sori dañoo war a góob bi dekki gerte bi kon aw ma droit loo xamante ne dinaa taxaw di leen solal foofu aw ma jotam teel a libéré gars yi rek prib dip bi rek ñu dem seen yoon incha allah. loolu bu rafet. fàtte di nuyu les cadres de Marfafa ko ñoom Madi Géej ñoom Jibi Sana bàyyiwuma kenn ñoom Afran Thiam sonn nañ si combat bu baax jàpp nañ si maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal Madi Jankong waaw président ASC Massane maa ngi koy nuyu bu baax parce que sonn na si affaire bi trop waaw di nuyu waa Palmarin Daouda Diop Daouda Ndour Palmarin a jóge ñëw ba fii di nuyu sama yaay yi nekk foofu ñoom ayeti maa ngi leen nuyu bu baax sonn nañ si trop parce que boobu ba léegi ñu ngi woote di ñaan maa ngi nuyu caat nag kii mënu ma koo ñàkk a tuddaat parce que du c'est la premier fois muy door ñëw samay combat moom daan na borset mu fekk si ma stade ñëw sargal ma samay biir morom kon tey bàyyi na ay moromam ñëw fekk si ma fii marfaaba ko fi ma dëkk kon tey man awma lu ma leen lu ma koy wax lu dul di ko ñaanal yàlla yàlla def ko roi des arènes balaa ma yàlla def roi des arènes na ko def caat ba pare doog ma koo def ndax man dund ko ak dund na ko ak man maa ngi koy ñaanal yàlla def le roi des arènes ci barke Seex na Seex Saad bu bu ñu bokk jaajëf gaynde benn question maa ngi nuyu nag mairie waa dëkk bi may ko waa dëkk bi dañoo sonn depuis bu ñu jàppee lii de ba léegi tooguñu ñu ngi jàpp di ñaan di dem fu ñu war a dem maa ngi leen nuyu bu baax di may cité nag euh, koo xamante ne dama koy jox kii bi rek mu joxal ma ko waa dëkk bi yëpp muy añi Masona ak maire Fathio ak à suivre man su may wax sama loxo day tuur ndax ndax am na. Grand lu tooy sa jooy ndeysaan làmba ji ñëw na ci biir mbokkam wax na jooy moom ba tooy ngi nuyu suñu waa kër bu baax di suñu sama sama taawu pap alaaji maa ngi koy nuyu di ko joon nuyoo mu jool ma ko famille bi yëpp di ñaanal sama yaay yal na ko yàlla xare àjjana di ñaanal sama yaay bi fi nekk Azur ak ay Awaku maa ngi leen di nuyu bu baax parce que dañoo sonn si man dañoo sonn si man ak ñeneen ak ñeneen ku ma tuddul mu baal ma ak ma tuddul mu baal ma ak maa ngi nuyu Ousmane. Ousmane Liir sama grand la sama xarit la ñoom Ousmane Poulo ñoom Birahima samay grand lañ dañooy sonn si man ñoom Ousmane Kadi ñoom Daouda Diom depuis bi bi taxawee ba léegi dañ ma jàpp lekkatuñu ba suur naanatuñu ba màndi kon man aw ma leen lu ma la fayee lu dul ndam te incha allah maa ngi ñaan waa Mar yëpp ñu ñaanal ñu may man ñu ñaanal ma yàlla may ma ndam. rendez-vous ba le 10 incha allah. maa nuyu nag zoo technique maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Babou Ndiaye du nuyu suñu waa équipe yi ñoom booy ñaa maa ngi koy nuyu bu baax yàlla may ko ndam si combat du nuyu ñoom Père Dégol ñoom per Hës du nuyu waa Kër Massar bu baax nag. parce que dañuy sonn si man bëggoon nañoo ñëw mais dama leen wax ne yoon bi dafa sori. yoon bi dafa sori te xam naa fu ngeen toll si man bu ñu ñëwoon fii day ëpp. tax ma ne leen dañ ma xaar ba le 10 ma may leen ndam ñu féete ko foofu andi ko mar incha allahu rabi di nuyu nag sama grand Matar Ba maa ngi koy nuyu bu baax parce que day sonn si man aw ma fayam di nuyu yaayam yi di nuy yaayam parce que di ànd ak nit yaayam ànd si neexul am na ñoo xam ne da ànd ak nit fu muy dem yaayam tere ko mais kii fu ma ko wooy yaayam ne ko demal ndax mbañik sa deret la kon man aw ma leneen lu ma ko war a fay di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yaayam di nuyu nag sama yaay bi fi nekk ambaat moo des si kër ga di ñaanal amar yaama nag yàlla may ko dafa feebar mu ngi dakaar maa ngi koy ñaanal bu baax parce que lii daaw moo fi nekkoon mais yàlla dafa dem mu feebar mu ngi dakaar maa ngi koy ñaanal di nuyu nag sama mag yi ñoom kumba bàyyuma kenn di nuyu jabaram jëkkëram nag kum kii jibi njaay jibi ci njaay mu ngi fi journée bi yëpp lu ñu financé yëpp jàpp na si ak yaayam man mënu maa lim ñëpp nag mais nag maa ngi nuyu waa di woo waa Djilor nag si combat bi. lim doo juum waaw waa Djilor waa Simal. gis naa nuñ may jàppale chaque année. bëgg naa ñu dolli. yaa Joof yor Assane. Assane sama combat bu fi am. yaa ngi woo ñëpp. mais may ma rek mënu maa ñàkk wax. parce que nit ñi dañuy sonn si man. barke alquranu karim. Assane sama combat bu amee boo ñëwee suba si. lépp luñ fay financé alimentation ndéki ñu jóge mar. ñetti bus yi monsieur di may ñëpp ñoo leen alimenté ndékki ak añ sukay magam moo yore boulangerie ba Tëngéej maa ngi koy nuyu bu baax di ko waa si combat bi day sonn si man di nag Biram Baru directeur de la monument de la renaissance sama combat bi jàpp na si bu baax a baax jàpp na si bu baax combat bi buñ ko annulé ak bii jàpp na si mu ngi dëkk ba ñaaxar mu ne bu ko neexoon mu ne kii mbañik mar faaba wala da koy bàyyi monsieur le maire mais dafa ne doomu aadama loo koy bëgg a bëgg a bëgg koo gën a bëgg mbokkam day dooleel monsieur le maire di ko jàppale. kon nag maa ngi koy ñaanal bu baax lépp lu mu mën si man yàlla doolil ko ko ba mu gën a mun loolu. waaw bàyyuma kenn daal maa ngi nuyu ñëpp di gën a saaku si ñëpp ñaan di nuyu nag euh, mbër yi nekk si dëkk bi damay wax séeréer. pir ke ndef na saate fe ga'aam a keen ake den na mi i waagim o den wa mar looj mar sulu simna baba tamit baaba me a paax depuis ya combaane mi geenu mu ndakaxo dakama a ñaaƴaxam a damtaxam a fiyaxam fop me simna ganin fop a teɓandonge Pape Sarr in waasimo a felanga ne xaye den leye xaye mbañik fiye in neke fiye in neke mais xaye a mbañanga leye ino mbogu yaay ino mbogu faap a ngaran doole am a ndamtaam parce que laale xaye o pogo fa refanga cinjof rek wena soɓid kam ana sad to ga ame saate fe owo cinjes Île de Mar owo cinjes raison kono hay mi jegima kan sadara bo juwala bo kantun fof bo fayako mais simnade no fof contanana den laade ne joko dial o ɓinnuno ho sakko o hara nun ñan sasune rendez-vous seni ndong seni ndong mam ndour mam ndour ko ñaka konte billahi kooku sama magu bopp la day sonni ma si man ñoom Dig Fall ñoom Elage di nuyu waa sama fan si club di nuyu Ibou Sène nag bu ko neexoon nag mu ne ma fayeeku ma lu metti mais ma ne Mañik si kër gi laa bokk joxal ma booy paas ñu ñëw te incha allahu rabi duut kan man maa lay yóbbu stade arène nationale lu ñu def fii ñu def ko foofu toj foofu ñëw mar Marfafa ko inauguré île du Saloum pour la paix revenir dans les îles incha allahu rabi. i eh, di nuyu nag sengoor borom oto bi andi gars yi fi yëpp maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag di nuyu nag woykatu Mbayang Lumi maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaan si ñoom di jaayafal ki leen andil oto bi. mu ngi dëkk bañ jaafaat oto yi andi gars yi moo ko joxe moo leen moo ma solal essence na ma yóbbul oto bu la ne tànnal si parking bi oto bu la ne mu yóbbul lagaay gars yi aller ma ko dërëm maa ngi koy nuyu bu baax mu ngi dëkk bañ jaafaat maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Météran Mbendi maa ngi leen nuyu nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax bàyyiwuma kenn waaw jaajëf